asalaamaaleykum mbokk tailleur yi waa regroupement de tailleurs de la région de Thiès ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di leen baalu àq ci weeru koor bi di leen baal àq di wax tey dañoo organiser woon ndogu pour yóbbu ko hôpital régional ak mairie léegi ci suba ba tey boo gisee suñu taxawaay fii ak ni suñu jëmm ak ni ñu mel suba ba tey ñu ngi ci togg yi donte dañoo xaw a jege di sax waaye suba ba tey ñu ngi ci togg yi ndax bëgg def lu baax comme suñu président yàlla dafa dogal ñu soo koofal fal yàggul dara mu bëgg a initier pour keroog dem nañ ci kilifa diine yi yóbbu suukaru koor tey ñu togg ndogu pour jox ko néew ji doole yi nekk hôpital ba pour jàppale leen ci ñu ñaan yàlla bu ci kanamee comme ñu ngi ci suba ba lay di togg bu ci kanamee ñu daje hôpital régional ñun ñëpp distribuer ndog yi ñun waa regroupement des de la région de Thiès ak waa organisation ak président. ndog yi yi ay ginaar lañ togg. pour distribuer ko daal nu mu mën a discrètement rek ñu distribuer ko. ndax lii da ngeen am kenn ku leen financé wala déet. non non kenn financé wuñu suñu xaalisu bopp lañ jël. Hmm. dugal ko def lu baax rek comme suñu président daal dañ koy soog a fal moom mu bëgg a jàpp pour liggéey def lu baax. Hmm. ñun tamit du mën dara loolu leneen lenn lu jàppale ko. lu ko réussir loo ci mandaam ñun ñëpp ñu jàppale ko mu jëm kanam daal moom la ñuy ñaan yàlla ci barke Seydina Mohamed suñu taxawaay badji yi ñun ñooy waa organisation léegi ñuy ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ba lépp lu ñu sumb ci mandat sekk bi yàlla jàppale ñu ci barke Seydina Mohamed kon benn heure la ñuy commencé incha allah ci kanam rek hmm. ci kanam avant heure dog rek dinañ ko distribuer ji fan ñuy njëkkee hôpital régional soog a dem maire incha allah Euh, waa Thiès maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar tey ñu ñëwoon hôpital régional doon def euh, distribution ndogu ànd ak euh, waa tailleur départemental de Thiès de la région de Thiès. waa tailleur départemental de la région de Thiès nag président mi ngi tudd Moustapha Mamadou Mamadou Seck moo àndoon ak waa regroupement des tailleurs de la région de Thiès ñëw def distribution ndogu bu am solo boo xamante ni ko fii ci diwaanu hôpital régional ma joxoon. ana tur bi Xaadim Diop mu def uh, tuuti communication ci ndogu. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp rek waaw di leen ziar bu baax di jégalu bu baax ci temps bi temps dafa yombut fi mu nii dafa xaw a xat di nuyu waa télé bi ITV di leen nuyu bu baax di leen sargal di kontaan bu baax si initiative bi ndax euh, regroupement des terres dans la région de Thiès kenn dootu ko laajte ñëpp xam nañ ko. ñoo dikkoon tey di def euh, di di joxe ay ndog fii ci biir hôpital régional euh, ànd ceeg président Modou Seck mu ànd ak njabootam waa bureau organisation ànd ak ñëpp gaa yaa ngi nii taxaw xëy na nag wax ji du yomb ndax dañoo xaw a xiif temps bi dafa xaw a sës fi mu toll kontaan bu baax ci liñ def dañ koo def ak xol def ko ak yëg-yëg ndax euh, lu rafet la xëy na nag ñëpp ko bëgg a def mais du yomb du yomb ñëpp man ko kon ñun la yàlla dogal ñu man ko tey def ko ñu ñaan yàlla yàlla bu mu yem ci tey rek yàlla nañ ko def ay yoon yoon incha allah baax na ñu jox président Mamadou Seck waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ngi leen di nuyu bu baax di leen euh, ziyaare bu baax comme ni ko euh, Nabou waxee également ki nga xam ne moo communication waa organisation di Khadim Diop di président marché Ocass aussi waxee tey ñu ñëw ànd ak ñoom ngir jëmmal leen ànd ak aussi ci délégation bi VJ euh, bi nga xam ni moom ñu ngi ànd ak moom ci délégation bi fekk ci waa organisation donc le secrétaire général Ibrahima Fall waroon na fi teew mais ñu ngi koy woo mais xam naa dafa am moo tax. donc di rafetlu initiative bi d' abord bu baax parce que initiative bi ci organisation la jógee euh, bi mu accès ci ñun aussi ni ñu mën a def rek mooy jàpp ci euh, ñu jéem liñ ci man waaye li ci ëpp ñoom la jëf ji ñoom la yite yi tamit ñoom la. ñun dañ doon ñëw rek juste pour compléter leen xam ne njaboot gi benn la ñun suñuy frère lañu ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi te li ñu denk aussi tamit dafay baax ñu déglu base bi li ñu bëgg ñu ci dox di ci ànd ak ñoom di leen ci jàppale loolu moo tax tey ñu ànd ñëw fekk si leen ci li nga xam ne ñu ngi ko moom lañ def tey ci hôpital bi. gis nañu aussi bu ñu fi indi woon euh, ay milliers de pannes ci di ko distribuer du doy ndax hôpital bi. Euh, gis nga nit ñi ni mu fi demee social bu am solo la kon loolu dañuy lancer appel rek ñi nga xam ne dañuy def aussi te yàlla tax ñu bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital bi li ci des nag muy kàddu remerciement ñu commencé ko ci ami puy euh, vraiment gis nañ ni organisation malgré ñoo piloté affaire bi mais moom vraiment moo nekk ci kaw. di ci jàpp guddi di ci jàpp bëccëg di ci démarché di ci wax loolu nag bu ko mënee organisation ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko may vraiment di remercier sunu jigéen ju baax ko ci mel ne ñoom Nabou saar ah, Abdou Aziz président Pape Ndiaye Koumba ah, Cissé ah, président Malick Fall Moustapha Sow président Khadim ñu bàyyi kenn vraiment ñooñu la ñu àndal ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi tey vraiment di wax ni rek nañ ko gën a waajal bu déwénee incha allah rabbi bu ñu bett. mu gën a yaatu gën a kawe suñu jot di sant bu baax président Khadim Samb Thiès solidarité vraiment ci orientation bi biñ ko ko waxee def ni vraiment li ngeen def biir hôpital kontaan naa ci cinq ba léegi mi ñuy xaar mais retard bi ñu am moo tax xëy na peut-être mu am empêchement mais vraiment kontaan nañ ci bu baax di wax ni regroupement départemental. Euh, bu cees euh, lii nga xam ne mooy organisation nañ def nañ ci bàyyi xel bu baax muy lu am solo ay acte la yu ñuy posé te acte bu ñu posé rek njariñ lay doon ci regroupement bi kon ñu ngi leen ci félicité heure bi waroon na fekk ngeen toog seen kër di ndogu waxuma la ndogu bi rek waaye ñaw bi jot amul mais ngeen bàyyi seen yitte di def te yàlla tax loolu yàlla na leen yàlla fay o nom du regroupement des tailleurs ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni ambition yi nii rek ñu fas yéene ànd ak yéen jàppale leen gunge leen ba incha allah rabbi fépp fu regroupement bi dem seen loxo nekk ci biir boobu ëllëgee bu ñuy wax un candidat potentiel ci regroupement bi vraiment ngeen mën a taxaw yëkkat seen loxo ñu mën leen gunge ànd ak yéen loolu tamit vraiment ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax di sant bu baax ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal nga xam ne it waa Sen 24 TV RT TV nga xam ne yëpp benn la vraiment ànd ak ñun ci li nga xam ne mooy liggéey bi bu ko defee incha allah ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa